nit dafa am lu muy denc pour boppam. doo joxe lépp parce que sëy dafa am bakkan te comme yaa ngi ci te xamoo fan nga jëm na nga mesurer sa bopp lu amul mesure baaxul. Mm-hmm. lu amul mesure dans la vie. lu tout texte est nuisible. nit war na bàyyi xel boppam ci jëfandikoom surtout jigéen ak li ko yàlla may. Mm-hmm. ngay weññi sa bopp. Mm-hmm. ngir borom kër ba ci àll ba dootoo la nam. Mm-hmm. dafa am loo xam ne da nga ko war a denc pour mu nam la. dëgg a ah, a mu nekk kumpaam wala mais bu dee heure bu ne bu wulbati ko ni ci jàkk ko du ko nam jigéen dafa war a cher. jigéen dafa war a am prix. mais xanaa xam loolu bu njëkk jigéen dafa daan am boroom kër. am doom ñu jël ko yóbbu kër yaayam. tey ko fu un mois di jour muy quarante jours ñu koy dàmpal doomam di ko dàmp di ko jox ruy am bi liir façon boo xam ni. su waa ji njëkkee sax mën na joxe waat mais guddi ko war a gor waaye léegi kan moo ko fi xaar. Ah. xale yëpp a wera ñëpp a fiiw. seen dara jeex na ci loolu ci loolu ma dolli si. bàyyi ma waaye est-ce que xam nga sexuel dina jóge ci di xool lu jëm ci wàllu awra tout le temps tout ñu bari xamuñ ko. faiblesse sexuelle. da ciy jóge li ñuy seetaan tout le temps di yenn image yow góor muy jigéen day dem ba day détruire benn. Mm. bu njëkk mag ñi dañ la ko daan wax amoon nañ lu nekk si bu daan taw am na téere bu ñu daan takk fii moom nga mës a séen ci ci jigéen ci ci genou bi. daawoo gis mag bu ko wolo bu bu solo une tenue indécente. nawet ba nawet nga ko daan gis. léegi nag tenue indécente ngay gis ci mbedd mi ak ni nga koy solee ak ni nga koy doxalee. ak loolu sax ko ñun mën nañu ci dara ndax jamono ko indi xale dañoo ànd ak jamono. xam nga sama doom ji tey li mu leen di taal. la ñu fàtte ne ngëm ak diine ak religion bu mën a nekk du soppeeku ba mukk waaye fu mu toll dafay mën a méngoo jamono dëgg la mais nag euh, dafa am loo xamante ni Sidi Lamine ndem euh, si yàlla yal na yàlla euh, yërëm ko te xare ko àjjana doon na ko wax mu ne diine dañu ko pareel ngir jamono moom diine dafa pareel boppam ngir jamono mooy li ngay wax jamono juy mënta ñëw rek moom mun na fexe ba ànd ak moom yaakaar naa ni toll nañ ca jamono joo xamante ne buy fekkee ni mag yi dañ la daan dund sax yaay booy nan la ah, wali wi de dinañ la dikkee façon gune ah, ba ca ah, koo xamante ni sax mun na sagare waaye bu fekkee ne mi ngi muuru cëram rek war wormaal ko ndax xamoo ndax wallu yàlla ngay dajal euh, kon nga war a mën a xam ne ni colka dootul dara l'habit ne fait pas le moine et l'apparence peut être très trompeuse et qu'il ne faut pas se baser Euh, oui ça fait le mois certes il faut que nit ñi ci seen biir maman seen fond ñu xoolaat seen doxalin Asma Khadija mun na sol nag robe ba mu baax mais bul xam ñaata saar la mokka est-ce que boo ko woy ci langum tarim alxuraan est-ce que nag du raw est-ce que du wàcce kaamil base bi fond bi moment moo des. te foofu lañ soxla ñu yar na yàlla yokk leeram nee na. nuru sa baay nuru jamono ko gën. mu ne jamono dina dem ba imam sol costume sol cravate. Mhm. su meeku dugg ci jàkka ji nodd wala bu àjjuma mu def ni xaar. mais c'est une tenue décente. waaw dama ne bu ñu dama ne dama ne bu ñu fàttane aussi mu sol tenue tenue tenue bu bu nga xam ni moom mi ngi ak jamono. juste pour revenir sol pantalon ak chemise. dugg ci biir jàkka ji noddu. wala mu nekk imam bi wala bu àjjuma mu def xutba. très bien jamono toll na foofu c'est important mais bu dee tenue bu décente nañu fàtte ni ay malaaka ñu topp te du ñu gis awra. non justement coach Moussa au fait le sujet n'est peut-être pas à l'habillement de la. Non, personne non c'est pas question de la personne. li ngay wax noonu c'est-à-dire nit ki. moom ak lu mënta mel lu mu mënta utiliser gis nga li mel ci fond ni mu mel bu dee mbaax la mbaax du lu ñuy laal dañ lu ñuy làmbatu muy moom ak barke bokk cër kon lu nëbbu la li nëbbu ci biir nit ñi te ñaaw loolu la ñuy waxtaane ngir nit ñi mën a defaraat seen toogaay gën a ragal yàlla gën a xam luy mbaax te di ko jëflante ci seen biir te bañ a nag xool coach Moussa a ah, ak sol na tey costume kon du taalibe bu dee taalibe Cheikh la koppati la war a def déedéet dans ce sens là on s'y perd assez souvent merci en tout cas Maman Ndak pour la rubrique dañ lay may rek nga jox ñu dernier mot ñun génération bii nga xamante ni quatre vingt la ñu tàmbalee ah ba ba tey jii nii. li ma li ma xam daal te wér ma. Uh-huh. mooy lu baax daal moo gën lu bon. très te koo def lu baax am lu baax te boo yéenee nit ñi jàmm suñu amee jàmm nga am jàmm suñu amul jàmm nga am jàmm kon nañ yéenante jàmm lii base bi. yéene nit ñi yiw raxas suñu xol yi génn kañaan ak soxor ak siis ak boddokonte nañ ko dindi ci ñun as gor day gëm yàlla te nangub dogal li yàlla dogal mënoo ci dara nañ raxas xol yi di def lu leer parce que loo def ci biir néeg loo may sa noon sa noon di ko mës a may sa sopp li ngay def ci biir néeg di ko dëbb te neexul sama borom muy suturaal bis na ñëw mu def la génn la ci biti weer la ci kanam àdduna nañ ko bàyyi xel très bien en tout cas